defet gi mu am tey yàlla na ko yàlla yàgg am torox tàng bi ñëw ci ñoom tey yaakaar gi tas bi am ci ñoom tey yàlla na ko yàlla saxal toroxal leen xañ leen xañ leen yi maa ngi leen di siyaara gis ngeen Ousmane Sonko dañu naan alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin parce que duñu xeex ba fii di wanteer suñu xeex gis nga xeex bii yàlla da cee def loxo ba nga xam ne leen ci demee xel mu dal ak tekk ak tey demee ci xel bañ ci demee xol fii looy demee xol rek fa xastalu daal gis nga lu la sa xol xañul du la may nañ leen demee xel te bañ a demee xol man mii di wax ak yéen démb Ousmane Sonko ay patriotam ñoo dem jël parole toog xaar ko fa ba guddi man yaakaar naa ne xeex bi tàppet du ci dugg ku ragal kaso du ci ku ragal dee du ci te ñun ay doom yu ndaw lañ yor te jël suñu kër di dem xeex dawuñu dayiwuñu saala yaayi ndeer tey lañ gën a mën a gëm xeex bi Ousmane Sonko nag nit njaay la delluwul gannaaw meetar ñun ñoo ko delluloo ginnaaw pee ci man man Assane Diouf ñoo dem ba këram patriote yëpp taxaw ñu waxtaan suñu biir ne leen carrément suba incha allah Ousmane Sonko bu ne day génn sax dinañ tëdd ci ji bi ne ko suñu kaw ngay jaar doo fi génn tey ndax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa saxaaba yi dañ daan xeex mbaaral ko keral ko muy ñaan ci yàlla gis nga ni da ngay demee sa xel parce que mënuñu gëm ni ñun ay patriote lañu Macky Sall yàq école bi jàngatuñu normal waa tey école bi war a examen est-ce ñun ñu war a laaj réew war nañ xañ école bi tey ñu examen te ñu war a laaj réew ñu te ñu war a yor réew dafa am loo xam ne lu nekk da nga koy joxe exemple ñu ñeme la ci nga woote ci ñu wuyu la ci mais looy indi loo xamante ne day xaj day boo toogee dañuy dañuy dañuy dañuy xalaat dañuy ragalee xel nga xañ leen ko. gis nga xale yi suñuy nawle nañ tout tànk yi suñuy nawle nañu Macky Sall da leen a toroxal yàqal seen jàng ñun dañu ñëw pour defar seen jàng ndax kuy kaas jàngal xale yi suñu doom lañu kon duñu yàq seen jàng xalaatuñu ko xel xalaatu ko sax dégg si beneen bi mooy patriote yi ngeen xamante ni ñëpp ànd ak Ousmane Sonko ay liggéeykat lañu. donte bu dee caaf ngay teg di ko jaay sax liggéeykat te patriote ay jeunes ñoo ci bari te solution ndaw la te gis nga nit ki Ousmane Sonko moomatul boppam bu demee dañuy ñaan ñu koy yàgg a may dafa rafet tamit tey ñu soxla ñu ñaan ko mu jox ñu te loolu lañ ko imposé démb démb man mi maa jël parole wax ñaan te gor nag gor lay mën a doon ku dul may sa moroomu doomu aadama ku dul may jaam doo ñaan yàlla mu may la patriote di jaay xar xoolal yow nga investir sa xar ñaata xaalis nga def ko ci sa xar takk sa sa takk sa séntu di dundal sa xar ambulant di jënd di jaay di jënd di jaay kon bu ñu ko dajalee ay fayoog bànn ñu dem ba fay ay ay nit pour bu ñu nekkee di marché ñu wëlbatiku jël xar yi yii ñu sàcc yii ñu taal jël sa euh, bagage su ambulant yi yii ñu sàcc yii ñu taal bu ko defee ñu wëlbatiku ne waa Ousmane Sonko la te du nay xawee parce que ñun ñoo démarré marché amul autorisation ñu ne waa kër Ousmane Sonko yi kon dañ naan ah gis ngeen li doon wax ak nii te amoon na ñu ñu indi jiital ko ci nopp kilifa yi ñun sëriñ ñaanuñu de sëriñ yi ñaanuñu de kilifa lañu leen tuddee parce que am na ci kilifa nga xamante ni dama ni Ousmane Sonko patriote yi ñoo ko ñaan askan bee ko ñaan muy leer gis nga man sama travail bàmmeel laay xool man mi ci ñu ko ñaan ca laa bokk dañoo def mobilisation Assane Diouf man ak Assane Diouf man ak Assane Diouf mi jóge États-Unis man Oumy Gueye ak Assane Diouf ñooy pay maa ko xalaat woo Assane Diouf waxtaan ak moom woo Imaam Diop waxtaan ak moom ne ko Imaam mu ni man naam ma ne ko kuy laaj réew da joxe exemple jàngu xale yaa ngi nii dañoo judd ku jur yërëm dañoo yàgg di xeexal jàngu xale yi te xale yi dañoo war a def examen te jullit pare itam da nga koy bàyyeeg moom yàlla kontaan bégal la te fan yëpp ñu ngi ñaan te ñaan yi nag am na effet bu def xale yi nag dañuy examen te examen bi seen avenir la tax xale yi seen avenir lañuy topp parce que étudiants yaa ngi nii bloqué université jàng bloqué gouvernement Macky Sall ay bandi ay fay yu màgget rek ci ne waa kuy xeexal xale la tax ngay xeexal xale di ko avancé loo war ci laaj réew muy avenir muy école bi pour la nga ko koy xaj kon boo nee yow tey da ngay xaj xale yi seen examen nga ne da laaj réew jox leen seen àq ak seen yelleef ci école bi waxoo dëgg waxoo dëgg waaye te loolu duñ ko nangu tey ko nangu ñun lu dëgg ñu ko may ñun bu àndul la xelam ñun ñu ànd ak suñu xel ndax xel nañuy demee xeex bi du doole du bu doon doole gën ëpp ñu doole Macky Sall amul doole ñoo ko ëpp doole ndax askan a ëpp doole koo gis te li tax amul am na lu mu ñu fankal maa ngi ñëw dañ da danoon tegal loo xamante ni fay nañu ay gaay yoo xamante ni dëkk bi yëpp ay xar pour ñu dem sàcc xar yi yii ñu taal leen pour ñu dem sàcc tam bagage ambulant yi yii ñu taal leen nekk waa kër Ousmane Sonko yi bu ko defee ñu am ñu ñuy teg ci leader yi am ñu ñu teg ci leader yi loxo daal di pousse élection yi bu bu ñu poussé élection léegi euh, présidentielle bi ñoo dañ koy pousse ñu am occasion di jël gaz bi di ko jox euh, tubaab yi di ko jox Allemagne yi. sama gars yi day demee xel te bañ a demee xol fii ku fi mën ngaa waxee xol mën a wax lu la neex mais gis nga demee xel da cee baax xel boo koy demee chaque jour dañ lay nawloo. Ousmane Sonko narul woon dellu gannaaw muy leer Aïda Mbodj Aïda Mbodj li muy wax kilifa yi. Aïda ay boromi société man mii di wax billaahi wallaahi bu fekkee amul yal naa tàbb tey sama bàmmeel ay homme de tenue ñu tenue civil ñëw buntu kër Ousmane taxaw wax ñun Assane Diouf sax lañ doon mu leer na police yi am na ci ay patriote te patriote yi ëpp parce que jàngu xale yi waay waay xanaa màkk nag ñu respecté kaaba gi kaaba gi Ibrahima tabax ni ko yàlla garanté di ñaan chaque jour Ousmane Sonko yàlla na ko yàlla garanté di Kaaba sama gaay yi jullit yëpp di dem di wëri Kaaba ga ñu nekk fii di xeex ñu war a wëri Kaaba ga ñu ñu war a toog di ñaan fii muy nangu ñu koy xeex non non kooku jullit du ko def. tàppatuñu yox yoxewuñu dawuñu dayyiwuñu gis nga kër Ousmane Sonko démb dafa fees del del del man mii dama doon fanaan ñu ne ñu carrément Ousmane Sonko ba ñu waxtaanee ma pare mu ne léegi mën ngeen dem seen kër ba suba ñu waxtaan xool gis nga ba suba ñu waxtaan xool parce que moom góor ba nga xam dem leen ngeen ñii ne ko dañoo jóge Koungheul ñii ne dañoo jóge Touba ñu ngi taxaw sama sama bët ba ko man lu ma sama bët mayu du ma fen Cheikh Anne ci boppam mu ne ana ñu jóge Touba ak ñu jóge ci àll bi ñu dem otal ma fayal leen Sonko ne déedéet nañ leen ubbil siège ba defar ba mu rafet ñu dalal leen fa dégg nga si Cheikh Anne ci boppam man mii moo ma jëlal taxi ma ñibbi si Cheikh Anne New ma jëlal taxi ma ñibbi ndax ku la defal lu baax te waxu ko yàlla def dégg si parce que Sénégal ñëpp kenn fitam toogul ñii seen fit toogul Ousmane Sonko bu génne ñu jàpp ko Ousmane Sonko bu génne ñu téye ko parce ñoom loolu moo am te loolu lañ bébétool mais man loolu ba tey man gëmuma ko ci sama xol dina am parce que Sonko liggéeyul ne yàlla di ko iblis di toroxale déedéet déedéet déedéet déedéet kenn du def lu baax am lu bon man loolu mosuma ko gëm man Ousmane Sonko ba ci yoonu Casamance bi ni muy demee préparé nañ ay tireur yëpp teg mais gis nga kenn du yàlla yàlla du kenn arxuraan xaju ci bopp golo arxuraan xaju ci bopp golo ndax ba yàlla di sàkk Ousmane Sonko tàgguwul Macky Sall tàgguwul Antoine Diome tàgguwul assassin bi muy général Fall ku gën a yées a am ci rey kon moom place moom rey nañ ko rey nañ ko fay dañ dañ ne ko kaay nekk malaakal mawti euh, gouvernement bi malaakal mawti dina wàcc ci dina bon dégg ngeen yàlla borom sutura la Ousmane Sonko bañ na ko fii dañuy indi oto belende daal ni sama ngol mayu ma may dugg ci oto belende samay garde corps ñi ma ànd di dox ci noonu xam nga ko ku gëm yàlla koy def te ku dénk yàlla sa ndaw mu téel la sama ku gëm yàlla yàlla garanti la boobu ba tey anam ñu ngi koy bexeel sottiwut ñi ngi koy bexeel sottiwut am na ci koo xamante ne dañ ko jox xaalis bu bari pour mu dem wuti sëriñ wut ay gàllaaj beleen de boppam mën a jàpp Ousmane te loolu ndeysaan jaru ko fi nag Ousmane Sonko fétiche jàpp ko alxuraan a man fétiche te ci alxuraan la sax dama bëgg gouvernement Macky Sall dem leen ngeen nopp ji tëdd nelaw perte ngeen nguur gi ngeen daanu ngeen magistrat yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm dëgg yi nag laa wax waxuma magistrat justice fenkat yi waxuma ko magistrat dëgg yi laa wax magistrat dëgg yi bàyyi xale yi kontaan nañ ci yéen pour lu tax ñu kontaan parce que xam ngeen ne xale yi defuñu dara gis ngeen dossier bi vide na Macky Sall ñaari maire moo ko teree nelaw bu Ahmed Aïdara Barthélémy Dias te bin incha allah ñun suñu baqal lañ ci teg nagam yow yaa ci teg sa baqal ci ay caaxaan te kenn bëggatu la ñun suñu baqal lañ ci teg sama gars yi xeex bi du doole du xol xeex bi du kërëng xeex bi xel la gis nga démb dañu jëloon pour parce que Macky dem na almaañ jox leen gaz bee ci des léegi nag élection yi la bëggoon dal xam na ne day ñàkk xeex bi moo ko arrangé woon préparé woon indi militaire yeeg GMI yeeg ñëpp ñëw duur teg tey toroxuñu amuñu gàcce tey toroxuñu amuñu gàcce waaye fan la xeex waree am yàlla def ñu ndox mu sedd nga taxaw naan dañu war a xeex pour lan duñu xeex loolu tamit est-ce que nit tamit dina ko xalaat mais ba tey dañuy comprendre képp ku ko wax dañu lay comprendre te xam ne sa xol moo tàng ci Macky Sall dañu lay comprendre rek ndax dafa dëgg yàlla xol du ëmb ñu koy bës mais pour dalal seen xel rek Ousmane Sonko ku ne askan bi ñaanu ko wax nga loo xamul man maay seede man ummi gay ñun ñoo dem ñaan ko ñun ñun askan bi ñoo dem ñaan ko ndax gor la doomi gor la te liñ ko wax xam nañ ko nee nañ ko patriote yi ñëpp ay gor lañu dañu taxaw am na ci ñoo xamante ne dañoo tayle seen xar xoolal ma xoolal ma sama bagage ñu ñëw ñu ngi taxaw maa ngi taxaw moo tax ba ma waxee ne leen ñoo xam ne patriote yi Ousmane ñu ci bari ay jaaykatu xar lañ ay ambulant lañ waa ji ne pee ci man keneen ne keneen ci man ma ne ko gis nga kon ñii seen xaalis lañu investir te xaalis bi ñu investir seen njaboot a ngi toog seen soxnaa ngi toog te loo dafa am période boo xamante ni ci ngay gagné dara pour mën après nga mën koo sukkandikoo sa kër mais booy wax nit tamit nit day xam ne moom ngay waxal Ousmane Sonko nit la ma ne ko Ousmane Sonko comme yow dañ la féetale fitna te lii occasion la boo xamante ni tey jii buñ la ko tegee kenn mënu koo tege ndax événement tabaski bu ñu jëlee ay xar taal bu ñu jëlee sàcc ay xar yóbbu jël alalu ambulant yi dajji bitig yi dañu naan Ousmane Sonko la kon dan naan moo woote ma ne ko Ousmane Sonko léeg-léeg dafa baax nga njuy say noonu ndax moo ma too sa bopp bañ ne la yow da ngaa wéeru ci boutique wala da nga ne jeunesse su Sénégal laa wéeru kon ñun tey dañu la may suñu bopp nga wéeru ci waaye am na nañ droit dañuy yàgg a ñaan di ñu wax ñuy ñëw mais tey nag dañ ñu ko may far force Ousmane man de wax naa lii man du ma daw du ma tay man Assane Diouf ak mbooloo mu takku ñoo fa taxaw ñëpp dañu accordé ne Ousmane waroo génn te Ousmane Sonko man buy xeex ku ne génnal yow bëggoo ko boo dee patriote ko doo patriote Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam bu ñoom saxaaba yi daan xeex dañ koy keral mbaaral ko ne ko toogal fi bul xeex parce que xam nga la li ñu soxla mëpp ci ko perte fu ñu koy jëlee fu ñu koy jëlee patriote yi ànd leen ak seen xel bi demee seen ngir yàlla ngir yàlla ñu ne ko nag tey moom di ñu ko may fa force boo ñu ko may fii la ñuy fanaan booy génn ñu tëdd ci kaw tali bi ñu ne la doo fi jaar mu ne waaw dem leen suba 11h incha allah dinañ waxtaan bu baax ci yeewee askan am na ñu fa taxawoon ay commerçant dugg si foofu commerçant bu dem ba wan ginnaaw war a dem ñaani borom réew mi commerçant yooyu wan la ginnaaw. borom société yi war la ginnaaw ñëw di wax ak waa yewi askan mi pour lan dimbali leen ñu ngir yàlla ngeen reporté lii nga kon nag nañ waxante dëgg Ousmane Sonko nag. askan bee ko parce que askan bee ko tax di xeex kon bu ko askan bi ñaanee pour Sénégal bañ a tàkk pour Sénégal bañ a parti parti fit yi kenn toogatul ñëpp daan nitu fit la nitu fit la. mu setal boppam nag njuy ay noonam parce que loolu nañ bindoon teg loolu lañ jiitoo ci ay kilifa yu bari ne leen ay nitu fit na leen xar yi nee nañ dañeen jël xar yi occasion la amuñu mais xaru xaru tabaski yi Ousmane Sonko sàcc àndul ak moom bandi àndul ak moom fayu àndul moom saagakat àndul ak moom ñi ñi ànd ñi ànd ak fayu yeeg bandi yeeg sàcc ba bu ñu leen kalaama jee police ñu bañ leen tëj làq leen ci ginnaaw tëj góor ña xam nañ leen xam nañ leen kon donc yéen seen xol waru gis nga waa kër Macky Sall yi seen kaw ñi ñu ngi sangoo diwlin saas ndox mu tàng xamul tax seen stratégie lu bon la woon yàlla ñuy leen moo tax gis nga loo gis rek dafa am lu gën nga chaque jour ñi naan dañuy yàqamte xeex dañuy xeex Sénégal amaana sax du tàq ñaani amaana sax du tàq te Macky Sall dafay jógee Macky Sall yàlla toroxal da koy gàcce Macky Sall fitna bu mu nar a indi yàlla da toroxal ci kawam parce bu ngeen xoolee képp ku mu bëgg toroxal bu mu bëgg indi man de élection yii di ñëw Macky Sall bu ñu ko gagné ensemble bi Macky Sall lu mu fi defati ban Sénégal yi dàqati far force Ousmane Sonko lay bokk présidentiel Macky Sall bu taxawee génne na gagné na élection législative yi mooy jeexal loo nguuram dootu fi taxawaalu sax parce que duñ léegi nag manifestation suba moo dàq concert casserole billaahi wallaahi moo dàq te ko ci def am ndam lu toroxal Macky Sall la ngoog da ngeen a bëgg toroxal Macky Sall toroxal bu gaaw baa ngoog toroxal bu gaaw baa ngoog yasaram bu yàccee ko ngoog ba pare xoolal gàllaajam fii lay tojee ba faw Macky Sall tojal na Macky Sall dem ba élimaan yi naan dañoo bëgg a pousse <laughs> nga xam ne tojal na tojal na moo tax suba la ñëpp génn gis nga bi amoon na doon juróomam juróomam yow imagine jël ay jeunes amoo loo leen di fayal dul taalal ma Sénégal sàccal leen ma xar yi jël leen bagage yu ambulant yi daw leen ak am moom yéen a ko moom lii rafet ba koy wax ak ba ñu koy lijjanti fekkewuñu de mais xoolal yàlla ni yàlla ëlbatee lii ndax ñaan même sëriñ si bu ñu sax lii ku ñu ko ñaan nga may ko boo dee gor lu tol ni màkkatar mu karama ku nekk di fa ñaan dem u yi war a dem seen xel dem ujaa ujaa war a dem seen xel daal ujaa ci dem di wuli kaaba ga di ànd ak fitna di woo seen njaboot naan mbaa dara amu fa ma yéen tamit nag ay jullit nañu tamit ay jullit nañu te yàlla nee na soo teggalee sa moromu doomu aadama fitna man yàlla ma teggal la fitna yàlla nee na boo tasul sa yaakaaru doomu aadama man yàlla du ma tas sa yaakaar yàlla nee ku la ñaan nga may ko man yàlla loo ma ñaan ma may ko dañ leen di demee xel te tamit di demee ci dogalu yàlla tamit te bañ a demee suñu xol fu mu toll nii gis nga lii nañuy doyee njiit Ousmane Sonko bu ngeen ko position bu mu ñëwee rek day day dalal xel yi day dalal xel am na ci ñoo xamante ne dañoo yónnee ne carrément suñu xarit bu mu ñëwagul parce que fit naa ngi bëgg am Sénégal suñu xarit bu mu ñëwagul am na ñoo xamante ne dañ ne carrément bu ngeen xëyee euh, croisé leen seen magasin yëpp am na ñoo xam ne dañ ku ci ne sa magasin wala sa buntu kër teg fa ay nit ñu bañ ñu bañ ko ñu bañ ko ñu bañ ko kii kon loolu yëpp bu ñu ne yaay borom fit na yow borom nga ñëw wane ni Sénégal moo ma gënal askan bi laay xeexal kon ko def ah. feebar war ngaa dugg sa fecc sant yàlla su jootal suñu borom allahu akbar alhamdulilahi rabbil alamin kon ñaan nangoote na sant yàlla sant yàlla parce que dañoo deele bu yàggul dañoo deele bu yàggul kon tey bu yàlla defee gàllankoor bi loo gis am na lu tax man nee naa leen yàlla lu mu def am na lu tax ma góoma stratégie Macky Sall stratégie la yàlla laa gëm parce que ñoom tegoon nañ seen stratégie boo xamante ni toroxal borom xar yi jooyloo borom xar yi toroxal euh, ambulant yi allahu akbar non yàlla du kenn kenn du yàlla Ousmane Sonko nee naa leen yàlla moo ko suturaal nee naa leen Ousmane Sonko yàllaa ko teg loxo yàlla moo ko teg loxo démb safar bi ma dugg mu ne ma soxna si seen waa ji yàlla may na ko am na ci koo xamante ne man mi maa ko yeboon du gouvernement bi la ne mu ne ma sama waa ji gis nga man mii di wax yow dañ maa sant pour ma jàpp Ousmane Sonko façon gàllaaj bi da wuti naa ko ci bi pour su ma koy maanaam buñ ma tiire buñ ma nangam ma ne ko kooku dafa dof nagam seen baay mi leen di yónni mooy fétis ba sonn te mënul jàpp Sénégal yi ma soosu ma Sonko nañ bàyyi doomi jàmbur ci nañu ngaan ma wat Ousmane Sonko yàlla mi ko fi sàkk moo mën ci moom dara mais comme dañu toll ci gouvernement fayu bandi assassin dictateur yàlla dina leen toroxal benn ak benn te gis nga ñi yàlla dina leen ci lal benn par benn laa la wax ñuy laajte lu ci président israélien bi nga xamante ne yàlla da koo ci lal muy bëgg a dee mënta dee sukkuraagam yàgg juróomi at médecin yi sage-femme yi di ko piquer pour dee ba tey mënul dee lu ko raw yàlla dal Macky Sall ak gouvernement ak képp ku ma àndal général Fall bi nga xamante ne moom rey nañ ko jëlee rey nañ yokkay salaire am mi ngi jaabante Casamance Ziguinchor bu weddee na laaj ma dem bala Doudou Ka ñoom ñi jaabante ci mbirum rey ba toog ba jël conseil te seen dara sotti massa moom massa moom moom boo xoolee jëmmam rek xam ne yàlla da koo alal boo xoolee jëmmam rek xam ne yàlla da koo alal ko yàlla yokk alal procureur général Fall Antoine Diome Macky Sall Farba Ngom Mamour Salé bas procureur yal na yàlla toroxal leen yal na yàlla alak leen Moustapha Niass moom yàlla alak na ko ba pare mu ngi ni foog yal na leen yàlla yokk alal Ahmed Aïdara Barthélémy Dias ma Sall ñooñu dinañ la ump di nga leen bàyyi ñu léegi yeggal seen liggéey incha allah ñooñu koo ci laal pale bi doo fa yeggali bu yaakaar ne da ngay taal euh, Sénégal wala nga laal karaw Ousmane Sonko nga ne yaa ngi yaa ngi nekk ci kaw suuf non Macky Sall loolu mënu nekk ba billaahi ku la ko wax day fen ku la ko wax day ngeen ne yéen da ngeen laal Ousmane Sonko galgal ko ngeen ne yéen da ngeen nekk ci kaw suuf ah <laughs> sëriñ bu ko garantir ma xam ne mën na fen sëriñu njabarkat bu leen ko garanti sëriñu njabarkat bu leen ko garanti ma xam ne mën na fen kon ma xam ne xanaa yàlla dafa déewante ak ñoom te yàlla du déewante ak firawuna du déewante ak hypocrite du déewante ak naafeq sama gars yi combat bi incha allah a ñu yërëm toroxal suñu noonu tey yàllaa ñu yërëm alak suñu noonu tey yàllaa ñu yërëm gàcceel suñu noonu tey xoolal lu toll ne fi Antoine Diop ngay royukaay war a nekk royukaay war a nekk exemple dem ba Touba naan yow liggéeyoo fa lu ñu la bëggee nga dem naa da ngay jënd kaay ay oto mel ne oto dafa tiital nit ñi nit ñi taluñu oto nit taluñu oto seen ngor la ñu àndal taluñu oto taluñu oto ñun ñoo mag oto ñun ñooy defar oto ñoo yor xaalis bi jënd essence dawal oto yéen nag oto da leen a parce que juddu waale na seen ngor amu leen ngor da ngeen jaay seen ngor doon jaam xaj ci poos te ñun xajuñu ci poos ñun patriote Ousmane Sonko xajul ci poos moom lu ma am ñaq ma ko ko lu ma am liggéey ma ko may xam nga ne ku jël alalam la salaire am ku jël alalam ak salaire am di ko may askan bi xam nga ne ko doo doo jooyloo askan bi doo tànga xolo askan bi xam nga ne tey jii fu askan bi jaaxlee parents d'élèves yi ñëpp jaaxle Ousmane Sonko ñëw dalal seen xel kooku boo ko dénkee réew boo ko dénkoo réew réew ba boo naree dàq mu fay ko mu fay ko mu fay ko li la ñuy doyee doomu aadama waaye di jël jëli rek xam ba muy dàq xam ba muy dàq di nga sax mu dàq eh, xam ba sa safara eh, toog ci mu lakk la sama gars maa ngi leen di ziar lii laa leen indiloon force force da leen day baax maa ngi leen di ziar yal na yàgg te ay noonam ni yàlla gàntale woon ñay bi ba ba abaraaxa waree ñay bi mu dem ba ca Kaaba ga bañ yal na yàlla bañal loolu police yi ñu bañal Macky Sall Macky Sall képp ko ànd ak rek yal na ko yàlla gàntal toroxal la ci barkeel a wax yal na yàlla def seen diggante ak askan bi ba ñu ànd ak armée bi yàlla am na ko ñu ànd ak askan bi jubale leen ak askan bi gis nga policier ñoo ñu gën a bëgg mag euh, Ousmane Sonko ma wax leen ko policier ñu gën a bëgg Ousmane Sonko policier yi ñuy ci policier yi ay nervi yi ñuy solal teni leen forcé ko policier yi ma xamal leen ko ay nervi yi ñu rey la xaw ay nervi waaw amin waay yal nañu leen rey ay nervi yi ñu solal ay teni dugal leen ci policier yi policier Sénégal ma su moo tax ma ne xeex bi dee leen ciy demee xel dee leen ciy demee xel taal ay kër policier taal ay non non ay doomu askan bi lañ ay askan bi lañ mais policier ñu ngi leen di ñaan ngeen ñuy signaler mervi yi dee leen signaler que ñun ñëpp ñoo bokk dëkk ñun ñëpp bokk nday ak baay ñun seen yaay leen yéen suñuy doom ngeen leen wax chaque jour dara gënul métti nga xeex ba pare dem sa yaay dee wala sa papa dee wala sa mag dee wala sa rakk dee wala sa doom dee ñu ne lu ko rek nga ne ci manifestation bi lañ ko tiire nga ne i kama tiire est-ce que est-ce que du sama yaay est-ce que du sama doom est-ce que du sama frère policiers bi ñuy def suñu diggante ak ñun bañu leen ko ba tëdd ci suuf doomu askan bi ak Macky Sall day dem ba ñu fekk askan bi su mu dee ba ñu fekk askan kon donc policiers yi maire bi ñuy dugal seen biir leen xoola ko xoola ko Barthélémy Dias ki rek Barthélémy Dias xoola waa ji ñu jël fay ko pour mu dem ray ko xoolal kooku ni ko yàlla weer ñi sax ci jur yàlla nga leen di weer gis nga kooku ni ñu ñëpp ñu wane seen kanam bañ ko waree jàpp yi ca kaw ne déedéet buñ ko jàpp parce que dañ ko yónni pour mu rey Barthélémy Dias non yéen yàlla toroxalagu leen da ngeen di door du ngeen doomi jàmbur yi ngeen di toroxal yàlla dina leen toroxal te seen aaju du faju li ngeen di nar ci Ousmane Sonko yëpp ñi koy kar yoonu Casamance ñëpp yàlla da leen alak da leen toroxal du ngeen ko gis du ngeen ko gis te du ngeen ko tal sax nag yal na yàlla alak leen wàcce ko ndox mu tàng diwli nag xeme bu tàng wàcce ko ci seen kaw mbaam yéen a bon yéen a bon yal na yàlla xalak leen yal na yàlla xalak na yàlla